mbokk yi ñëw naa fii tey ci Doha di capitalu Qatar ngir jox suñu raaya réew suñu équipe nationale muy gaynde yi ñu ñëw nag ci njalbeen dañ daan daje ci palais république ñoom ñoo daan ñëw waaye ren ni football bi bindoo ak équipe yi laata ñu leen di bàyyi Euh, may ñu woon ñu am cérémonie bi ci Ndakaaru moo tax ma ñëw fii fekk si leen ci seen bërëb ngir mën a jox leen drapeau national ngeen xam ne yéenay suñu ambassadeur yéenay ndaw réew mi yéen réew mi yaakaar ci joŋante bu am solo bii waaye laata may tàmbali nee naa suñu xel ñun ñëpp tey jii mu ngi ci Sadio Mané. ñu ngi koy woowee ñancoo de Bambali muy gaynde Bambali euh, ndax gaaño bi mu am te loolu dafa ànd ak football professionnel kon dañ koy ñaanal yàlla nu borom may ko tànn mu mën a dellu siwaat lu dul yàgg ci football bi ci terrain bi xam naa ni capitaine Kalidou wax na ko Kalidou Koulibaly di ngeen gën a football ndax moom ku ne xam na yitteem ak engagement ak fulaam ak faydaam kon tey bu yàlla defee bokkul ci compétition bi ñun de amuñu benn xel ñaar si ne di ngeen ko taxaw place bi nga xam ne moom foofu la waroon nekk tey kon yal na ko yàlla jàppale eh, mu ñëwaat très rapidement ci football bi. bu loolu weesoo maa ngi nuyu seen entraîneur tactico muy Aliou Cissé di ko gërëm. di ko ñaanal yàlla di leen dënk nag yàlla suñu borom yéen équipe nationale bu Sénégal di leen dënk suñu borom di leen ñaanal di ñaan Sénégal na leen ñëpp ñaanal ndax équipe nationale ngeen doo leen équipe bu Macky Sall doo leen équipe bu gouvernement c'est l'équipe nationale du Sénégal kon na ma ko waxee woon ci Coupe d'Afrique bi képp koo xam ne yow am na loola yàlla dënk ñaanalal xale yi moo xam ci bi ñuy bindal di jàng walla bi ñuy lijjanti yoo xam naa loolu yàlla may daal dem koo ngir gone yi mën a gañe wala boog ñu dem fu benn équipe bu Afrique masul yegg loolu mooy ndamu senegal mooy seen ndam kon ñu ngi leen di ñaanal la leen waa réew mi ñaanal jàppale leen ngeen xam yéen it saa yoo leen laale bal ñëpp a ngi tiit ñëpp a ngi bouger ñëpp a ngi tiire même ñu bokkul ci football bi ci biir kër yi ci mbedd mi fu ne kon jàpp leen ne mbir mi du ay mbiru foofu xam ngeen ko day ndax ay professionnel ngeen waaye jàpp leen ne match bu ne final la ci ñun ndax juróom-ñaari match moo ci tournoi bi pour ñu yegg final kon match bu si ne dafa am solo bu njëkk bu ëllëg bi bi ci topp bi ci toppaat muy premier tour bu ñu qualifié dem huitième bu ñu qualifié incha allah dem quart de finale bu ñu qualifié dem demi finale ah demi finale moo ciy teg andil ñu ko coupe du monde yal na ko yàlla def waaye ak lu mën a am déjà yéen gàcce ngaalaam seen der rafet na ci àdduna bi te ñëpp naw nañ ñu te it ñëpp dinañ leen tiit ku war a dajeeg Lions yi da gëstu da nga xool da nga dem ci. caméra yi xoolaat nag a ngeen di jouer pour jéem a xool fu mu leen di jaar kon ah, yàlla am na lu mu leen may yal na ko yàlla yokk dëgëral ngeen xam ne aussi nekkalu leen fi tey Sénégal yéenay yaakaaru Afrique te eh, ba mu dajee semaine bële ak président Cap loolu la moo ne yéenay yaakaaru Afrique donc il faut ngeen sori dem ba demi-finale au moins. loolu c'est un objectif boo xam ne d'ailleurs vous l'aviez fixé au Sénégal ah li ci des nag mooy ñun suñu wareef mooy ñu accompagner leen dinañ ko def may gërëm suñu entraîneur national de coach Aliou Cissé tudde ko El Tactico da koy ñaanal moom it yàlla jàppale ko may ko ndam ak ñëpp ñu mu àndal ci encadrement bi euh, ñoom ñëpp du ma Euh, ak fédération président fédération maître Augustin Senghor ak ñi mu àndal may sow ak tous les membres du bureau fédéral ñu ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm aussi ministère bi de sports ak collaborateur ministre bi ak aussi équipe yi fi newoon yëpp laata lii di am ku si liggéey nga ñu sant leen gërëm leen kon daal wax ji du bu dul ndax xam naa ni dangeen war a dellu concentré wu euh, ëllëg yal na leen yàlla may ndam devant Pays-Bas réew la nag bu xaw doy waaye ñoom it man dama gis keroog pour ñu ne ma ne ko da xam nag noo leen di football ak ñoom ma leen ñu fanal ma xam ne ko ñëpp a tiit kon yàlla yàlla dem ndam may ñu jàmm suturaal et puis maa ngi sant ñëpp di gërëm Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Son Excellence. Nous allons inviter les jeunes à venir par la photo de famille.

souvent comme Colbert.